jërëjëfe Serigne Touba est-ce que Serigne Touba Serigne am na morom ñoo ngi santaat yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Cheikhul Khadim bu baax ci xéewal yëpp di ziar ñëpp rek euh, tey nag ñu fa yéene dikk ci lu gàtt rek xam naa ni am kàddu yoo xam ni dañ koo dégg tam képp koo xam ne yaakaar naa ni bëgg lu baax wala ngay taalibe dina la metti euh, rawatina sax ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew waaye rawatina ñi nga xam ne ñoo nekk itali kàddu yooyu nag jóge ci ki xam ni euh, yaakaar naa ni du guleet ay kàddu di jóge ci moom yoo xam ne yu ñaaw yu tegginiwul la jëm ci yoonu murit jëm ci taalibe murit yi waaye bi yoon nag yaakaar naa ni li ñuy wax tuumaal gu rëy a la waaw aw duur bu rëy a rëy tey moom yaakaar naa ne arasi ngóote na bu baax a baax a baax a baax muy Omar Diagne Cheikh Omar Diagne ki ñuy wax Cheikh Omar Diagne nga xam ne kuy topp ay waxam di nga gis ni moom mel na ni singli na yoonu murit ak tooñ gu metti lay yëkkati di ko jëmale ci yoonu murit wax ji wax ne boo ko seetee diggante màggal ba gàmmu ak li jiitu màggal sax ba màggal wala ba ba ba gàmmu yooyu yépp dafa am taalibe yoo xam ni rawatina ñi nekk itali dañuy def blanchiment d'argent maanaam xaalis boo xam ni dafa salte jóge ci drogue wala lu bon lu bon loo xalaat rek maanaam xaalis bu salte boobu la ñuy yónnee àddiya wala ñu nee na ñu lëkkaloog yenn sëriñ yoo xam ne dañ leen koy yónnee ngir ñu def ko àddiya nee ay milliards wala yu demee noonu buñ ko defee ñu def ko addiye am na sëriñ yuy lëkkalool dem na ci sax ba sëriñ yoo xam ni dañ lay laaj 10 pour cent ci xaalis bi xaalis yu mel noonu lañuy ñuy yónnee ci ci ci ci ci ci màggal yi ak gàmm yi waaye ni mu ko waxee xam nga koo xam ne dangay wax yaakaar ne ñi ngay wax yàlla ne ëpp xel boo leen tudd taw boo waxee li ngay wax dinañ xam ni ñoom nga ci jublu ndax Italie ku ne xam na ni première immigration bi fi ñëw ci ay sénégalais. ay bawol bawol lañ ay bawol bawol lañ di ay murit ñu ci ëpp dañoo muritu jóge jaara ja am ngërëmal sëriñ bi ñëw tukki te yaakaar naa ni duur gu toll nii képp ku ko yëkkati tey li ngay wax amoo ci tey buñ la fëggoon woola wala ñu portele plainte woola tribunal amoo benn preuve boo xam ne di ko mën a génne kon ñàkk jom dëgg dul mooy loolu rawatina ci jullit fen boo ko defee aras yëngu na waxu waxantuma la ak na nga duural nit loo xam ni nekkul Cheikh Amadou Diagne war ngaa tiit lool ci sa bàmmeel yow war ngaa tiit ëllëg bu ñuy régler say jëf yow ndax wax ji li tax mu laal ñu dëgg-dëgg ñun itali lañ nekk te nit ki lépp looy wax war nga ko xam waaye toog fi nga toog di ay nit fii est-ce que xam nga ni ñuy dundee est-ce que xam nga ni ñuy def ba dajale dërëm yeeg ñaar dërëm yi ba mu mat ay milliards maanaam muriti Sëriñ Tuubaa yi nga war xam ni ñuy dunde ndax li yàlla wax ni inna allaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwaalahum bi anna lahumul janna foofu la murit yi nekk maanaam seen bakkan ak seen alal dañ koo jox yàlla subhaanahu wa taala maanaam nekkuñu fi di dajale ay milliards wala di dajale xaalis boo xam ni wóor na leen yow taw tey boo faatoo doo ko yóbbaale. lépp lu ñu am buñ ca dundalee njaboot gi sutur li ci mën naa ne sax àdd yi sëriñ bi lañ njëkk a génne ci ay daay daayira yoo xam ne dañ fay daje lu mu tuuti tuuti di laaj dix euros wala cinq euros wala ay jaayante léeg-léeg ñu def ay jaayante. ba ci kër sëriñ Touba yi ngay dégg yëpp muriti Serigne Touba yi ñoo koy jënd te waxuma la duñu leb duñu dem sax di leb banque yu ci ëpp boo ko xoolee tey da ngay gis ni taalibe yi ñoo ko dajaleel seen bopp ñiy jënd dem ba jënd ay terrain yoo xam ne sax dañ ko jënd tabaxal seen bopp def seen plan bopp tabaxal seen bopp fu mel ni États-Unis nga gis église boo xam ne dañ ko fekkoon muy muy église ñu jënd ko def ko def ko kërul islam ni ko sëñ mu Mbacke digle woon da nga war a xam ni taalibe yi Serigne Touba yi maanaam liggéey Serigne Touba moo leen yóbbu ci àll bi weekend bu nekk dañuy def ay daayre ku nekk yëkk di sa ñaq cinq euro lu mu tuuti ti cinq cinq euros wala dix euro ba vingt euro lu waay am yëkkati ko joxe fuñ koy joxe. ci yoonu yàlla subhaanahu wa taala te yàlla suñ borom ku ko ku ko jox mu fay la lu mu fay la lu kawe sa njort moo tax wërsëgu murid yi faw muy bari faw muy yokk ndax lépp lu ñu am dañ koy delloo yàpp yàlla subhaanahu wa taala bu fekkee nag yow julli dëgg nga loolu warulaa naqari ba tax ngay yëkkati ay duur yoo xam ni tegoo ko fenn tey ku la woowoon doo génne preuve kon ñàkk jom weesuwul loolu ak mën a fenn mën a wax lu dul dëgg ndax li mbir mi li tax mu metti ñu gor yoo xam ne dañoo bàyyi seen réew bàyyi seen lépp ñëw di liggéey kon sa ce qui veut dire que kon yow mode yi li ñuy dundale seen waa kër sax da blanchiment d'argent la kon dañuy jaay drogue dañuy def prostitu prostitution dañuy jaay yu bon daal loolu la ci xaalis boobu la indi Sénégal te ku xam procédure xaalis ni muy doxee xaalis sax boo koy yónnee lu mel ni wërsëg dina la laaj maanaam xaalis bi fan la jóge nga bind ci sa salaire wala loo dencoon wala nàngam wala yu demee noonu ak àdduna bi ni muy doxee léegi sëñ bi am na loo xam ne ak tooñ la de te tooñ ku la mën ci ñàkk jom la bokk te Cheikh Omar Diagne dañ la koy wax carrément fen yu metti yi ngay fen nag yëfi ñàkk jom dëgg nga ko jàppe ndax boo wéetee xam ne li ngay wax dara du ci dëgg boobu ba léegi nag fi nga fee waxoon Serigne tubaab yi ñoo ko naan wooral muy woor te loolu ay kàcc nen la mën dama foog ni li ngay wax da ci du rendre compte léeg-léeg murid de mosuñoo jekki-jekki rek jóg attaqué kenn mais yow saa boo toogee attaqué murid yi boobu ba léegi nag dara fekkule ci ndax dañ laa talut lii ñu sëriñ tubaa digal ci lañ nekk waaye doyoo kenn galax ni ko yow ndax ci tooñ nga nekk te kuy tooñ du mucc kuy tooñ du mucc jéem a la delloo si sa xel Omar te nga bàyyi tooñ bu fekkee yow jullit nga mën dama foog ni sax yow kuréel bi nga bokk muy ànd sàmm jikko yi dañ la faa war a génn ndax ndax ndax lu tax mooy ànd sàmm jikko yi lañ wax te yow jikkoy fenkat jikkoy workat jikkoy soskat nga yor jikkoy tooñkat jikkoy ku reew koo xam ne booy wax ak nit ñi di leen jàll baat yoo xam ne kenn xamul lu muy nirool kon yow sa jikko baaxul ànd sàmm jikko yi ne ku ciy bokk war ngaa doon modèle te yow doo modèle ndax taalibe Serigne Touba yi ngay xas mooy xas Serigne Touba ndax Serigne Touba mooy seen kilifa moo ñu jaboote ñun ñi nekk ci àll bi nag muy itali muy états uni muy Europe gi yëpp foofu wër kër Serigne Touba yaa ngi ne xas te di euro yeeg 5 euro yi ñoo ko defar ba ca Masaalikul Jinaan googu la nga fa waxoon dërëm yeeg ñaar dërëm yeeg juróomi dërëm yi ñoo ko defar. te sëriñ bi jàppal benn affaire bu fekkee comptabilité ngay def walla dara nit ñi lu ñu ay nit yu bari bu ñu dajaloo di jël seen ñaq di def loolu faaw mu bari te murid yi dañoo mën a joxe seen ñaq lu ñu am sëriñ bee leen ko gënal te li ñuy def day dellu ci ndimbal yi fi mu toll nii demal nga laajte xam nga gëstu dafa baax waaye sa xolu kiñaan moo la may doo gëstu demal nga laajte sëñ Muntaxa mi fi toogal Serigne Touba ñaata nit lay dundal par bis nga xam ni kon liñ fi liñ fiy indi sax xaajul bay mat bay bay mat loolu ñaata nit lay dimbale ñaata daara lay taxaw jumaa yi mu tabax daara yi alquraanu karim yi li muy def ci social université bi milliards yiñ ci tudd masaalikul jinaan noonu demal nga gëstu bu baax a baax lépp lu ñu yor desee luñ dara yàlla subhaanahu wa la lépp lu ñu yor jox nañ ko yàlla loolu nag bu fekkee mooy metti sa xol da ngay wax ak yàlla ci boppam te gëm naa ni lii nga nekk boo ko bàyyiwul du la jig mukk ndax kenn fekku la nga toog ñu lay tooñ wala dara kenn mësula wax dara waaye foo jóge di sànni xeer waaye bii moom dafa rëy rëy goo xam ne ñun ñu nekk bitim réew képp koo xam ne am nga kàddu war ngaa jóg ndax dañoo tuumaal na dañuy blanchir xaalis te loolu normalement sax yow dañ la cee war a porter plainte yow ndax loolu war kenn kenn war ko bàyyi noonu te incha allah dinañ ci jox ay jéego bu baax a baax te li ngay def ñàkk jom la dañu la koy wax Cheikh Omar Diagne ñàkk jom gi nga nekkee foo toll di tooñ murid yi nga war a bàyyi ndax mën nañ koo violence ci boppam la ñu sëriñ tubaa jàngalut ndax sëriñ ku ne gis na ni mu doxee ak tubaab yi waaye nag koo naan duma la topp fa ngeen jëm soriwut lépp looy waxati daal bay boo nga xam ne yaa ngi jàmmarul ak murit yi foofu la ñuy yem ak yow asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى